njortu mbaa di yaakaar wala sax di xiini mi ne ne kenn mel na ci réew mi ku mel ni Serigne Modou Gaynde borom Kéemaan ci mpaj loolee xelaat la gu amul moo Modou Gaynde borom Kéemaan ma ca Saalum ca kër Sàmbaraxi yootal na ma mbaxuus koo xam ne ëpp na di toogaale nee na ma Seydina Ousmane ma ne ko naam sàng bi mu ne ma li ma yàlla may ci mpaj laa bëgg réew mi yëg ko ma ne ko loolan la mu ne ma am naa fi càngat goo xam ne fatxan fatxan laa ko tuddee càngat gi càngat la goo xam ne ci ubbeekaay lay dox ci wërsëg ak mbooleem loo xam ne loo dugg yàlla da ciy teg loxo càngat googe for goo xam ne kenn du ko sangoo ñaari yoon ci at mi ku ko def benn da génn réew mi wala faaw daañu la ñamal kaso am na itam beneen càngat goo xam ne sang bi nee na dama koy def ma ne ko ban la mu ne ma sirru dunya sirru dunya ni turam ku ko takk faaw adduna bi dégg la ca la nga nekk am na fa itam benn ndomba bu ñuy wax wallu mag goo xam ne ñi baax ci réew mi réeréewuñu ndomba gi ndax yàgg nañu ànd ak moom ndomba gi ndombaay kaaraange la gu lay aari ci accident di la musal ci say noon lépp lu lay nara lor boo takkee ndomba gi doo ko gis doo ko dégg boo toogoon ci barab ba jëye di fa wàcc boo àndeek ndomba gi feeg jógoo fa jëye ji du wàcc sëriñ bi lépp lu muy dugg balaa cee dugg ak yow faaw da koy listixaar ba ñu wan ko lu leer mu soor cee soobu jaaro bayre bi nga xam ne ku ngeen gis mu takk ko ci réew mi ci sëriñ Modou Gaynde Kéemaan la ko jëlee sëriñ bi nee na yor naa ci yeneen bagaas bagage yooyu moo di ñett jaaro la yoo xam ne benn bi bàyyi la benn bi yaay la ba ca des doom la yaay xool fu sa doole tollu rek nga jël ca bala neex li wér daal moo di bu yàlla mayee ba nga am bi ñuy wax baa ji sa lépp baax na sukkandiku ci waxu yonente bi mu ne likuli da in tawa ilal sa mbolem mboolem jàngoro bu yalla wacce rek amna na saafara suñu koy saafara weer wu sell terootina weer wu ak ngeenel baal ma ak baal la nañu yalla boole jéggal ci barké sel wi tàllal samay laaf yóbbu asamaan man suma sañoon nekk ngoo saay sune Ablaye Ndiaye bilaay war ngeen a wax ak Asou Ndiaye nag ah am na yoo xamante dara jaru ko man wax naa wax wax ba sonn mais dafa dëgër bopp su xasee ba mer kenn mënatu fexe ba wàccee am loo xamante ne daray àdduna jaru ko àdduna bu jeex bii rafetal rek am solo ay wax yu sew yi amul benn njariñ rawatina ci weer wi mu nekk man wax naa guddi wax bëccëg mais day siisu moom kenn mënu koo wax lu mu dégg ah. baat bu neex jullit bu ko ah. ki makam xam kay sama xarit bat bu neex am eh. wayal mama misadul abi xana xamoni wakat reina rey sen leen seen bëddu gis te jànguleen wuru banke baadi saadul abi yal na yàlla may darajaal walaay rafet jikko la ni darajaal ni nga soppe yonent bi moo tax ma lay darajaale ci barke maami saadul abi robu naa bi deewu ba ca di ko xool ma gëlëm ndeke taar ba daamatewul taar maami saadul abid aduna bi de jaru ñaaw loo fi man di gis walaay dafay jeex sëriñ Mansoor borom daara jee ay meeru mbay jee bàyyi leen saxaar gi mu dem léegi mu yegg gaar ga mu jëmma chef de gi léegi mu ñëw moo di maami saadul abik ni nga sopp yoneen bëgg yoneen ci bi motatoy toy matte wisila sama waaje rafet jikko yal nanga nga roy ci jikko yonent be barke ma misa dul abi ah sama jigen baangi ni way ah, ma la gëna contane ma la gëna contane xamna ni la mëna def ngir ngir wacce température bi té nak tourna xeweli té ma koy ndaysan ndaysan ah ah so I said. ah bëggee ma ko woon nii bëggee ma ko nii bëggee ma ko nii waaye xam naa sa jafe ci Rasulullah alayhi salaatu wasalaam yàlla yàlla sàmm la guddal sa fan. maa la gën kontaan maa la gën kontaan. jërëjëf dana kontaan maa ngi dana kontaan bëgguma woon nga waaye nag damaa xam sa cofeel ci yonent bi alayhi salaatu tey nga am nga sama wóol rek bu yàgg lool am ci man boo xam ne ndeysaan dafa partagé macha allah tabarakallah man sax sama rongo yaa ngi bëgg a tuur te nag doonu woon lu ma sabablu waaye nag lii lu lu mbégte la boo xam ne daal macha allah tabarakallah yonent bi rek laa koy seedeel ñëw sa kër nga invité ñu ndogu ma tardé dugg si ngir di la bégal tuur say xéwal ci barke yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla nga am yoon Seydina Muhammad sama xol sedd na sama xol sedd na. kontaan naa trop yàlla xam na lii moom li moom xol bu sedd laa ci am. da nga defal la benn surprise wala dañ fay daje. yaa fa jaar maa fi jaar de dama doon waxtaan rek pour yàlla da ngaa dugg ci Seydina Mohamed alayhi salaatu wasalaam alayhi da caa a ci dara xam nañ ci ah? ci dara ci yërmande ji ak faible bi damaa ne der rek tudd turu Seydina Mohamed rongo ñu wallaahi azim foo maa ngi dëggoon ci yàlla yàlla may daraja mag yi fi darajaal ma dooy borom darajaal moo di maami saadul abi aduna bi de jaru ñaaw loo dafay jeex ndax sëriñ Mansoor borom daare jee ay mee run mbay jee keneen na fi jógee wallaay ndeysaan kon bàyyil mu sedd xaaral man kontaan na lu tax waxoo danga fi dajeeg sama lay waaw ko bëggoon a def naa ko def surprise kii dafa nekk sama doom nekk sama xarit papaam sama cousin bi kon mbégte laa am tey jii est-ce que nga lii nga def nii ci rafet jikko la bokk boole ay nit ñu baax ñu bëgg Seydina kon yow amal nga. waaw bëgg moom muy jóg. wallaay ndeysaan sax bëgg moom muy jënd mu war a jooy ndax ñëpp ko bëgg. ndax jikko ju sell ji ko yàlla defal fa tabaarakallaa moo tax ku mu woo rek da ngay sawar a déplacé wu. ndax nag ñu xam nañ Ibrahima Mbaye soppi mii di suñu papa ni ko yàlla def ci réew mi. boo ko amee ba di ko déplacé rek am na jikko ju rafet ju la yàlla defal ndax du ànd ak n'importe qui kasaalika man gis nga yàlla na yàlla defal la jàpp mais nag damay ko mos a xiif laa fi indaale waaw <laughs> gi moom ñëpp café laa naan rek lekk suñu kër yi mu gis nga mu rey dibaa <laughs> mu indi affaire ah, a waroon a ndogu si nag Mouhamed waay naa ko xam naa ne yonent bi rek nga ko mën a jaar bu <laughs> masha Allah waaw mais Talla Mohamed. waaw Mohamed sa papa mi ngi fi mi ngi fi. dalay laajte mais da nga gëj kër ga. mais namu naa la ah mais maa raw. Euh, gis naa nag benn affaire bu nice booy def. Mhm. Euh, mooy taj tëb Seydina Mohamed. pour mhm. refléter Seydina Mohamed. ci ay jikko yu baax. ci seet ci wax lu baax. ci sol baax. def lu baax. day encouragé. baax doo ci moo tax ñu ciy góorgóorlu te bu ngeen ñu ci encouragé day tax day gën a wane ni que fi ñu teg suñu tànk baax te ku mel ne yow nga wax. sama xel dal dama ko bàyyi dina ko gën a dogali. ah bu soobee yàlla ah. naa leen di mbayee ni bày ko nag réer bi ñëw na li nga yàgg loolu yàgg waxtaan bi. kon kay moom la ñuy dem nekk ci nañ leen dem ah. nekk ci kon jeex na. weru sel terotina weru jam ak ngëneel baal ma ak baal naa la yalla ñu yalla boole jéggel ci barké weru sel sell wi ma yëkkati tàllal samay laaf yóbbu asama man suma sañoon nekka ngoo Alhamdulillah Santa Tina Gurbinyumo Yim Nyu jaglele Nyu fekewa